Pape Alé nag defeere nañ ko ba suba tey bii fële ca tribunal mu war fa jàkkaarloog euh, procureur ganaaw bi nga xamee ne nag euh, moom kon euh, tegoon nañ ko loxo dimanche bii ñu génn moom nag ñu koy toppee daal mbirum publier ay documents yoo xam ne ay document militaire la te sax amu ca li nga xam ne moom mooy autorisation wante itam wax xibaar yoo xam ne wérul ñu ne nag lii di article soixante quatre-vingt ak soixante-trois bu code pénal bu bu Sénégal euh, ñu ne nag euh, ci lañ daal euh, sukkandiku ci lañ nar a kon sukkandiku daal ngir kon ay mbiram ñu xam na lay mujjee. lu ko jiitu nag démb ki nga xam ne moom mooy procureur de la république àdduna jëmale ci kon la tax ñu teg kii di Pape Alé Niang loxo moom nag nee na fan yi daal ñu weesu dañoo nemmeeku daal ay. wax yoo xam ne kon euh, dañ ko doon euh, wax mu ay attaque ñu attaque kon di ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñooy force de défense et de force de défense yi te mu ne sax muy loo xam ne kenn mënu koo nangu te nee na loolu mën na nasaxal li nga xam ne moom mooy jàmm euh, ji fi am fii ci dëkk bi te it mën na indi ay jafe-jafe ci li nga xam ne kon institution yooyu noonu lay doxee. kon nag euh, ba tax daal euh, ki nga xam ne euh, moom mooy Pape ñu ne ñu woolu ko loolu nag kii di procureur mu nga xam ne ci ab communiqué bu sub démb garde du corps Ousmane Sonko yi nag tolloon ci juróom te ñu tegoon leen loxo fële ca tribinal jeudi bi ñu génn ñoom nag tey mujjantal ga sax kon ñu yóbbu leen fële ca Mbour gannaaw nag bi ñu jàkkaarloog procureur bu tribunal bu Mbour yóbbu nañ leen kaso kon placé nañ leen sous mandat de dépôt ñoom nag euh, li tax kon ñu jàppale daal dañoo njortu ne mbir moom xewoon te ci ki te sax ñu attaqué foo ñu attaqué woon fa kon euh, ab këru ki nga xam ne moom mooy euh, Fatou Ndione ak i mbokkam kon ñu ne daal boo mooy wël attaque boobu amoon te ñu tudd leen ca moo tax kon ba ñu yóbbu leen kaso. xibaaru Afrique benn ponk lay doon njiital France di Emmanuel Macron ñu ne nag suba dina amal ab déclaration boo xam ne dina ca euh, fësal daal kon lii euh, di euh, retrait boo xam ne soldats yi kon waa France opération yi mu doon amal kon foofule ca Sahel ñu tuddee ko Barkhane dinañ ko jeexal officiellement. moom Emmanuel Macron kon dina ko xamle suba ñu ne boobule discours sax mu ngi ko war a amal ci ab tukki boo xam ne kon mu ngi koy war a amal foofule ca Toulon ñu ne nag boobu la déclaration boobu la déclaration daal moo war a wane ne kon France bàyyi na officiellement euh, kon opération Barkhane boobu nga xam ne mu ko doon amal foofale ca Sahel. beneen xibaaru bitim réew lañ koy jeexale muy nag euh, fi mu nekk nii nag ñu ne euh, ñii di waa Amérique ak waa Russie donte nag lii di guerru Ukraine bi indi na ay xaajaloo si ñoom waaye terewul nag seen i waxtaan ñu ne ñu ngi koy wéyal. Eh, di amal loolu nag ñu ko xam ne ñoom ñooy ay responsable américain ak yu euh, russe ba suba mardi tey bi kon lañ ko xamle bu ñu sukkandikoo sax euh, ci yéenekaay bi di Wall Street euh, Journal nee nañ nag ki nga xam ne moom mooy Jack Sullivan nekk conseiller à la sécurité nationale bu Joe Biden ñu ne moom waxtaan na yoon yu bëri waxtaan na ki nga xam ne wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñooy ay jegeñaale njiitalu russe bi di Vladimir Poutine loolu ñun tey jii xibaar dafa seen teewlu dañu jox dajale ak jàngin bi